أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النشير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen mbokk yi niy seetaan ci réew mi ak ci biti réew fu fi waay manti nekk rek ñu ngi lay nuyu nuyu bi gën a sell te di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu may nu nun ñëpp nu yendu ci jàmm ak salaam di ziyaar suñu kilifay diine yi nin ko baaxoo defe di leen ñaanal seen ndono li yàlla na ko yàlla teye ba dara du ci yàqu di ñaanal kilifay aada yi nga xam ni suñ boroom mi joxe nguur mu leen teg ci boppi réew mi li ko tàmbalee ci son excellence la président Macky Sall ba ci ki gën a suufee lépp lu ci waay yor pour defar réew mi yàlla na ci suñu borom jàpp ba lépp réussir bi jaahi sayyidil wujood sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ñi feebar yàlla nañu wér ak jàmm ñu juum dem kaso bu buñ fa jógee yàlla bu ñu defate lu leen fay yóbbu di ñaanal sénégalais yi nga xam ni tabaraka la foo dem ci àdduna bi fekk leen fa e, te teraanga tax leen a jóg yàlla na leen ko yàlla may te ngeen ñibbisi nag ndax réew mi ñun waa réew mi ñoo ko war a tabaxal sunu bopp waaye gan du tabax yal na yàlla defar seeni xew defal leen ay xéewal def ci seen poos dara ni ko oustaz Alioune Sall di waxe na koy ziar bu baax a baax eh, balaa ñuy dugg ci waxtaan wi nag ñuy nuyu suñu xarit Thierno Correa nekk ca Abidjan sénégalais bu mag boobu di jàmbaar di ko ñaanal moom it yal na ko yàlla dolli ay xéewal di ñaanal suñu mbokk nag eh, eh, may sa géey may sa géey Ndem Couture ca Abidjan moom it noo koy ñaanal bu baax di ko ñaanal yal na yàlla dolli ko xéewal moom it ba mu am teraanga ba ñibbisi bi jaayi saydil wujood sallallahu alayhi wa mbokk yi nag niñ koy defee eh, altine bu nekk dañuy ñëw indil leen ay site historique pour xamale ko ak xale yi ndax xale yi bari na lu war a xam ci réew mi te xamuñu ko soo leen waxee yenn dëkk yi du ñu xam sax fu mu féete tey nag jolof la ñuy waxtaanee jolof boobu nga xam ne moom euh, empire la woon xam nga treizième siècle lañ ko njaajaan sanc maam njaajaan njaay muy dëkk bu bari histoire bu bari ay jàmbaar la ko tàmbalee ca biram jéeme kumba ba ci buuna ma fa mujj nekk buur ba jolof ay jàmbaar fa dëkk yoo xam ni mbokki waa réew mi la ñuy it ndax koo gis mu sant Njaay ci réew mi rek en général après reenam ma nga jóge Jolof ma nga jóge Waalo ndax kii seen maam meññi leen di njaajaan Waalo la jóge ñëw sanc dëkk bu ñuy wax njaayeen e, dëkk bu mag boobu moom lañu moom la njëkk a sanc ci ci royaume di Jolof e, ba muy parce que Jolof a ngi nekk royaume à partir de 1549 après la libération Euh, bi nga xam ni moo amoon te waa Kajoor euh, demoon fekki lellifu li fàkk muy réew mu bari histoire eh, bari ay jàmbaar eh, bari it doom yu baax euh, sit yooyu nag tey moom lañ bëgg a jàngal sunu gone yi may ñaan waa régie rek buñ ma mënee génneel site yi jolof yi bu ko defee ma expliquer xale yi ndax ndoj mi ngi ci mi ngi ci waaw fii ndoj la fii fi la fi la buur yi daan sangoo ku jël nguur fi ngay sangoo si e, xam nga njaajaan bi mu sancee njaayeen ba joge fa biram njéemé kumba toog ab diir gis nga fi mooy pale bi nga xam ni fi la buuna alburi dëkkoon ca yang-yang fii nag e, yaakaar naa état du Sénégal war na dem defar ko defar bu baax ndax lii lépp buuna buuna alburi moo ko fi defoon buuna moomu nga xam ne moo yóbbu teen yóbbu école yi yóbbu raay bi indi fa plan de développement daakaande ji moo ko fa yóbbu doon ku am vision eh, gis nga ko fii moo di yang-yang di di réew mu rëy rëy rëy nga xam ni buur ba jolof yu bari dëkk nañu fa ba ci Alburi Biram Benda Njéeme mi nga xam ni moo jur buuna waaye gis nga bi sunu maam njaajaan sañcee njaayeen ba dem Biram Njéeme kumba toogub diir ñu woo benn shérif ndax booba dëkk ba doxut te booba sëriñ si dañ la daan seetal ndax fii jig na la wala jigu la fii sax ñu ngi may nettali li ngeen di seet nii nii soof si doon yenoo kajoor di ko yóbbu jolof la waaye xam naa ni lii moom métti na lool moo tax dinaa dinaa porter plainte Ali Khoudia Ndiaye <laughs> fii nag moom mbul la mbul la ca kajoor parce que fii aussi Albouri mi nga xam ni seen dooma da nekkoon na ci dëkk bi ndax dëkk bi ah, moom Alboury mi ngi yaroo Kajoor dëkk bu ñuy wax Ngigis te Ngigis ak fii sorewuñu donc moo tax ah, ah, dëkk fii fii génn ci fi fii nag yang-yang la dégg nga bi nga xamante ni nag Birame Jéeme Kumba dem na ci benn shérif ci li ñu góor gi sàkkoo ki gisee wax nga xam ni moom moo nu jàngal li nuy wax ci moom lépp ci moom la ñu ko jëlee ak ci suñu xarit Habib si ancien ministre nga xam ni ñooñu it dañoo xam histoire alors euh, shérif bi dafa defar euh, gàllaaj jox leen ko jox leen benn téere ni leen ngeen takk ko ci euh, geenu gëléem gu ndaw gi ci des ngeen takk ko ci yarub sawat sawat garab la bu ngeen ko ko dóoree ndànk bu leen ko dàq bu leen ko def dara topp leen ko rek fu mu dox ba yës fa ngeen sanc fa ci la demee ba yang ba yang yang gi gëléem gi taxaw ñu ni moom dem nga fa ne yang rek moo indi turu yang-yang gis nga bi mu demee nag ba dëkk bu ñuy wax céng ci céng su ndaw booba dëkk ba amagu ci céng su ndaw fa la yës ñu sanc dëkk ba tuddee ko céng fii mooy euh, xeex bi nga xam fii euh, mooy xeex bi amoon diggante Alburi ak euh, Amadou Cheikhou Samba Sadio waaw gis nga fii yang-yang la ci tataak alburi gi fii lu ne xew na fi lañ daan denc armes yi gis nga fii mooy gile fii nga gis nii ñu tabax ko mooy fi nga xamante ni fi la Samba Lawbe doon xeexe ak alburi fii la musa Buri déggeen koor du jeng daanu eh, ndax fii wax dëgg yàlla Samba Lawbe xeex boobu xam naa eh, ndeysaan eh, warul woon a am waaye am na gis nga ko Samba Lawbe fii lañu fii lañu fii lañu ko gaañe fii lañu reye aussi Moussa Boury dëggeen ko du jeng ndax moom li taxoon mu dem gis nga Linguère fii nag moom njaay njaay njaay yi ñoo ko moom boo demee sax am na fa quartier bu mag boo xamante ni Linguère njaay lañu koy wax waaw fii nag mooy fi nga xamante ni fii la Alboury xeexee woon ak Amadou seexu alors euh, bi ñu sañcee nag foofu euh, muy cëng muy capital bu yàgg a yàgg nag ci Jolof euh, après nag lañ fa jógee gis nga fii fii la bara bara barami euh, rakk la ci Amadou Cheikhou bi Amadou bi ñu reyee Amadou Cheikhou moom daf ni dafa bëgg jël nguur gi moo tax mu doon jàppanteeg Alboury gis nga Alboury fi ñu ko denc ca Dosso ca Niger fii mooy euh, bàmmeelu Alboury Ndiaye gis nga ay doomam defar nañ fa jumaa defar fa lu baree baree baree bari gis nga loolu moo di jolof muy réew moo xamante ni ay buur ba jolof ñoo fa daan falu ah ñi sant ndaw am fab reen ñi sant saar am fab reen ñi sant Njaay am fab reen ñi sant ñang am fab reen ndax jolof bari na kër yoo xam ne boo fa demee nday ja day sant euh, euh, ñang baay ba sant Njaay wala ndey ja sant mbay baay ba sant Njaay waaw ak ngisee yéen kume yéen ngeen di dégg toujours góor gi sàkko ki di ko wax ngisee yéen ak kuma yéen ak ñi sant euh, le corps ñoom ñëpp waa waa waa jolof lañu gis réew maa ngi nii ah, di réew mu rëy a rëy moo xam ne ci Sénégal la bokk gis nga fii mooy palais euh, Bouna bi Bouna Albouri gis nga moom defaroon na ko ndeysaan parce que xam nga Bouna ci ñi njëkk a jàng ci école des fils de chef ci la bokk donc ni mu doon dunde yi tabarfakàlla boo fa demee da nga gis palaat yi gis paakaam yi jaaseem yi fitalam yi gis nga àlluba parce que moom bu ñu fàtte ni ab jullit piir la woon moom Albouri Biram Penda Njéeme bàyyi bi sax kooki nettali na ma sax ni ma amoon na jàkka te dafa daan noddal boppam waaye gis nga bu gaa yi jógee rek di leen xas naan gis nga buunaa ngi noonu buuna Alboury gis nga lalam bi ca yang-yang lii nag Sénégal war na ko defar waaw nii ñuy defaree kër yu baax yi ñu defaree ko kër yi parce que kër yu am solo la ndax histoire soo xamee li fi sa maam def rek mën naa am lu baree baree bari doo ko def te it ñii defal nañu Sénégal lu rëy waaw defal nañu Sénégal lu rëy ndax ba nga xamante ni jekkadi nañu tubaab bi ñëw fi indi armam not nu te yorul lu dul ay yet ak i jaasi ñoom ñii ñoo jógoon ba tubaab bi dem ñoo xeex ak gars yi nag boo nee indépendance ñu ni diw moo ñu ko jox diw moo ñu ko jox waaye ñi ñu jox indépendance dëgg mooy mooy mooy ñoom Alburi ñoom Lat Joor ñoom Buur Siin ñooñu ñoo xeex des siècles ba tubaab bi dem ba xam ni ñii moom il faut ñu jox leen indépendance ñu dox ñu jox nu ko loolu lu lu rëy rëy la discours bi nga xamante ni sax euh, Wal Joojo Njaay moo ko defoon fii le 26 août 1958 devant le euh, le le général de Gaulle discours boobu ki ko def njaayam jooju jolof la jóge mooy muy Wal Joojo koo gis mu sant njaay fa la jóge waaw ñoom sama mbokk sama xarit ñoom Souleymane Ndéné Njaay ñoom ñëpp seen njaay ji jolof la jolof la jóge boo demee Kajoor Kër Ma Njaay Dawur ñoom ñëpp jolof lañ jóge waaw waaw ak kër Birama Sele kër Birama Sele ñi nga xam ne ñoo doon nekk jaraaf njàmbur ñoom ñëpp jolof lañ dañ jógee kër Mandiaye Daawur ah ñoom ñëpp jolof la ñu jógee muy réew moo xamante ni nekkoon empire lu nekk xew fa ci histoire Sénégal eh, nit ñu baax ñu bari dëkk fa nga xam ni boo fa demee bu la bàyyi saa kooki di nettali keroog bi alburu yi jàppanteeg bara te bàyyi fari keten yorum ndëndëm di tëgg ndeysaan di tëgg romb alburi alburi ku ni bàyyi fa rikkateen yow ndax ñi ngay ñi ngay waxal ndax ñu ngi lay dégg mu ne ko ah tanoor man tey laay mujj a dégg takk leen tey laay mujj a dégg takk leen ca xeex boobu lañ ko rey te te gis nga ko waaw bàyyi fa rikkateen géwal bu mag la woon waaw waaye keroog dañuy alburi ah man tanoor tey laay tey laay mujj a dégg takk leen ca xeex boobu la des waaw sangulee awa saw lawbe ba sangulee awa saw keroog bi ñu jamee pat euh, bi ñu jamee fasu alburi fital gi rëcc moo sëgg di forfital gi ñu dóor ko bal mu sëggaat forfital gi jox ko Alburi Njaay ba mu mën a daaneel bara te ab lawbe la gis nga jàmbaar yàgg na Sénégal du question rek géer ñi ñoo daan xeex déedéet bay fari kéten foofu la des ah, ab géwal la ah dégg nga sàngule awa sow ab lawbe la foofu la des ci xeex bi Alburi doon xeex ak bara ba am seen indépendance toog nag nekk buur ba Jolof ndax bi Alburi ñëwee xeex ak Amadou Seexu euh, dafa dafa naroon a ñibbi moom sax Kajoor waaye Demba Waar ak euh, Lat Joor mi mu àndaloon ni ko noonu dañuy yegg comme rey nañ buur ba Jolof kay dañuy dem samp la buur ba Jolof waaye moom xam nga bi mu amee ñetti at moom Alburi ci la jóge Jolof ndax booba xeexu ngën a neen ci la ñu rey bokkam yépp baayam yépp ah alors ndeyam jël ko indi ko kër Amadou Yàlla après ñu jox ko may sa tend joor nag mu yar ko dëkk bu ñuy wax ngi gis moom ak Samba Lawbe ak Lat Joor ñoo bokk benn kër bu ñu yaroo Alburi xamul woon jolof wax dëgg yàlla jamono jooju waaye ñu ñu samp ko bi mu faloo nag lañ ko ni yónneel ci bara ni ko na la nuyu si mbaa nga nuyu si ko ci la yónnee ci bara ni ko ñu ni ko Alburi nee na nga nuyu si ko <clears throat> mbaa mu nuyu si la waaw ah, ci lañ daje nag xeex xeex boo xamante ni fekk na Alburi sax nekkul yang-yang mi ngi woon ci benn soxnaam bu mu takk ni ma ko Baye sa ki nettalee rek noonu laa leen koy waxe waaye bi waa ji dawal Baye Fari Kéten di dawal fasu fasu fasu fasu fasu fasu Alburi wi ñuy wax capitaine Alburi dégg tànk yi xàmmee xeli capitaine mu ni waaw foofu de jàmm amu fa bi muy si dañu ko waay teel sans fas yi bul rey sans fas yi ana diw mu ni ko manga fa mu ni ko ana diw mu ni ko manga fa mu ni ko ana diw mu ni ko manga fa mu ne ko boobu dëkk kay seen moroom a nga fa bu rey sans fas wi mu ni ko nag loo gaaw gaaw bara dina lakk dëkk ba booba ndeysaan ndey jaa ngi yor ay ab ab layu def ci kooraay def ci ay kii xam naa seeni xar fa fuufa di ñaan ci la alburi takkoo nag gis ngeen photom bi ñuy génne tamu tamu tamu tamu tamu ni ci nii booba la parce que dafa takk gàllaaj gi ba mu bari bi muy génn xajul ci buntu néeg bi ñu dajji saket bi mu génn dem ci la jëflanteeg bara nag ba daaneel ko en mille mille huit cent soixante quinze toog nag nekk buur ba Jolof ba mille huit cent quatre vingt neuf bi muy départ nag di dem ca Kéba Traoré ak Samori Touré pour amoon projet bopp moo doon taxawal armée bu mag en Afrique pour ñu mën a xeex ak tubaab bi ni mu ko doon waxee sànni leen ci ndox mi leen fi indi woon muy jàmbaar ju mag a mag a mag <laughs> léeg-léeg nag ndeysaan nga dégg ñoo xam xamuñu ko. naan dafa defa def nii dafa def naa dafa daw Albouri kenn warul wax ni dafa daw parce que kii dawul kii lu mu bëggoon bu négocier woon ak tubaab bi jaay ngoram jaay dignitéem tubaab bi defal ko lépp mu toog waaye dafa lank ba tëdd ca naaj wa waaw ba dexee ji doosoo kooku Sénégal njukkal rek la ko amal ak di leen di leen décorer parce que nag ñooñu ñoo moom décoration yi ndax euh, liberté bii Sénégal am tey ak nii réew mi tëddee ba xam ni lépp tabaar fakal la tegu na ci fi mu war a tegu parce que démocratie tubaab bi fi la ko fekk ndax démocratie ci sunu gis-gis ñun du dara lu dul joxante cër te waa réew mi fekk nañ joxante woon nañu cër ba ñépp ay bokk lépp di ko def gis nga xeex boobu bara doon xeex euh, Alboury doon xeex ñim ko àndaloon mooy waa senegal gépp muy tëgg yi muy géwël yi muy lawbe yi muy géer ñi ñépp a àndoon di bañ genn bañ loolu la Sénégal masa xam waaw lu ñu bëgg ñoom ñëpp bu ñu àndee am ko loolu nag moo doon ni ñu taxawale suñu réew loolu nag démocratie la woon ndax démocratie réew moo xam ni kenn ku ne jot nga sa cër wax dëgg yàlla moo ma réew bu fekkee loolu du démocratie ñun xamuñu luy démocratie waaw waaw waa régie nag bu ngeen ma manee tafal numéro yi bu ko defee xam naa su ma bokki jolof-jolof yi ku mën a dugg gis nga dëkk boobu ñuy wax ndoj nga xam ni fa la ñuy sange buur ba jolof buñ ko sangee ba noppi jël lay ñor ca réew ma nag daal di ko fay euh, sa euh, suuxat ji ko fa suuxat ko waaw bu jebbee ñu xam ni kii jig na leen bu jebbiwul ñu folli loolu it defe naa ni c'est des actes démocratiques arrangé woonu ñu jëlee lafi loolu yàgg na ci réew mi kon nag euh, nañu xam ne daal dëgg-dëgg am nañ loo xam ne war nañ ko gën a téye gën ko fonk mooy bañ a xeeb sunu royaume yi ndax ñun amuñu leneen amuñu leneen te boo demee ci réew yi nu wër muy Mali muy euh, Burkina muy euh, euh, Guinée muy Guinée Bissau ah foo fi dem fu fa buur nekkoon boo fa demee fekk fa buur waaye nag Sénégal moom dafa mel dañ koo ragal parce que ñi ko doon ñoom la ñu tiital a tiital ba fi mu ne daanaka sax jaral na leen far ko ba te jar na xeex jar na xeex bu baax a baax a baax ndax ñi doon ñi war a faru buur ba Jolof ñu ngi fi ñi war a falu euh, dameel ñu ngi fi ñi war a war a falu teeñ ñu ngi fi ñi war a falu buur buur siin ñu ngi fi buur saalum moom fal lañ seeni buur loolu nag <coughs> day lu am solo ndax réew bu <coughs> réew mu am buur nuroowut ak réew mu amul buur gis ngeen naa Faso bërki dem boo njaay bi mu fi naree tas jamonoy Blaise Compaoré ba réew ma naree tàkk le Moronaba di seen buur moo jóg régler lépp ba jàmm ñooy bu nu amul woon buur kon naga ni réew maa nga ca lu kenn xamul waaye am nañ ko jox nañ ko cër mu mérito cër bi ci juddu ba ci deret ja ndax ñun critères yooyu moom lañ doon joxee cër du rek da ngay jóg ni may Samba Ndiaye damay falu déedéet dañuy seet kuy sa yaay seet kuy sa papa kan mooy sa maam lan ngeen def ci réew mi ndax mérito nga nguur wala mérito woo ko ñu soog la koo jox ndax buur buur du deesu ko tànne n'importe comment waaw te loolu yàqul dara ci république bi tey jii bu fekkoon jolof am na buur ba jolof bopp eh, day buur ba jolof bopp waa jolof gépp ko jox seen baat muy wax ci seen kàddu lam fa mën a lijjanti ay groupe school mënu koo lijjanti waaw ah, tey jii bu fekkoon président nee na cëpp tey jii Casamance balaa dem fenn dem ci roi du suy nuyu ko parce que waa réew mépp a ko jox seen seen seen kàddu salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam sëriñ bi noo tudd ak foo nii damay damay lépp tur bi puisque damay seetaan sa émission bi waaw mais franchement maa ngi lay gërëm di la sant jërëjëf jërëjëf te li ma bëgg mooy réew mi kuy mm-hmm. télévision mm-hmm. ku ci nekk waroon na am une heure de temps boo xam danay invité woola mm-hmm. pour ngay wax réew mi puisque yow mi yaa jërë déglu waaw maa ngi lay dégg yow mii yaa jërë jërëjëf dégg naa sa émission bële paase man nag étranger laa doon vivre maa ngi doon ñëw pour dellu si toog famille bi. tuuti mhm. mais xam naa ni yow. Mhm. ñi woon ñi bokk ci war a réew mi ci yow bi nga bokk. alhamdulilah. waaw. alhamdulilah war a xam loolu. Mhm. waaw li ngay def. li télévision ci Sénégal muy mu muy ñëpp Youssou Ndour ñëpp. ku ci nekk war na la woo wax ak yow. wala mu jël antenne jox la pour nga wax. waaw parce que nit day wax wax buy defar. Mhm. waaw nit da mhm. mais doo wax ngay journaliste ak ñëpp da wax wax buy mais mhm. amul solo te ngi fii yi. di journaliste yu nekk. liñ wax yi wax dafa pour ñu réew mi dañ koy diviser. jërëjëf jërëjëf wax ñoo ngi kontaan lool ci yow parce que lii sedd na xol trop. waaw xam naa sax euh, <laughs> léeg-léeg gars yi yóbbu ma foo xam ne sax yéegu ma fa waaye sant yàlla rek ndax euh, xam nga yëf yii nag du tricher euh, wax moom bu amee tricher wala bëgg cee fay bor wala leble ci te wax bi yàlla taxut mën naa am ki koy déglu te xàmmee du ko dugg waaye su fekkee li ngay wax ci sa xol la jóge àla kulli haalin directement ci xol lay dugg bu fekkee dëgg la te loolu noo ngi ñaan sunu borom rek mu jàppale nu ci lépp lu nu wax rek muy luy defar réew mi mais pas lu koy diviser parce que <clears throat> wolof yi dañuy wax ni sayu matt même su matt ya dee yu sew <clears throat> boo ko boolee takk ko boo ko téyee mënoo ko damm waaye boo tekkee say wa genn matt gu ne jaar ne boo ci téyee boo nee nii sa ñaari loxo ndànk rek mu damm parce que boolootuñu ñun nag ñoo ngi ñaan sunu borom sunu làmmiñ wi yàlla bu ci dara génn luy diviser Sénégal waaye li ciy génn yàlla nay ñaw Sénégal ba Sénégal gën a booloo parce que notre intérêt mooy mooy qu'on s'unisse ñu booloo te looloo fi mas a am looloo fi mas a am ñun même biñ fi nekkee ay royaume ne fi da ngay gis ni royaume di Kajoor léeg-léeg mu am problème day dem Siin Siin régleel ko ko wala royaume du Siin am problème day ñëw Kajoor Kajoor régleel ko ko loolu nag moom lañ war a téye Sénégal waaw ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum waaleykum salaam wa sëriñ bi noo tudd ak foo nii woowee. waaw maa ngi tudd Lamane Ndiaye. waaw Ndiaye waay. waaw maa ngi wootee fii Petit Mbao. ayca bisimilah Lamane. waaw bon man euh, ñun ay géwél lañu. ay géwél. waaw. wax nga dëgg. Euh, bokk kër ma jëgg. kër ma. kër ma jëgg lañ dëkk. Euh, ñun suñu famille. Mm-hmm. pour ma wax la ñu gën a xam. Mm-hmm. Assane Ndiaye ci la bokk ak Mangone Ndiaye. ah waaw kay. ak ak Alaaji Njuga Jeng ñoom wax nga dëgg. ñun nag sunu cosaan Jolof la waaye wax nga dëgg wax nga dëgg. parce que bi Amadou te bi ñuy dem suñu dëkk la jaar. Mhm. jàkk yooyu ñu daan seen yi nga xam ne lay mel ay jaboor ñu koy ci suuf la ko suuloon ci suñu dëkk waaw léegi nag euh, bi mu reyee loolu Philippe Pape wàññee ko mm-hmm. ñu daal ni ñun ñoo ko jàppale mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. Euh, ci lañu gàddaay nu ñëw Kajoor boo gisee moo tax bu nuy tagga danaan yaari Kumba Fall Njaay ba ca gàddaay bi loolu ma ca gàddaay ga. loolu moo ban dëkk Kajoor ngeen ngeen la leen Amari fekkoon Amari Ngoone. ban. ban dëkk la leen fekkoon ci Kajoor. Ah, Jolof ngeen jóge gàddaay ànd ak moom. ànd ak moom. Ah, bi ñu ñëwee. Mhm. bi ñu mu nu xool leen biir Kajoor bu mhm. mhm. nag ndëkku. ndëkku. waaye ñu fekk ak xàmb noonu mu bari ndox ñu daal ni fii de dëkku na loolu waral dëkk bi. ndeysaan est-ce que. waaw ñu ànd ak géer nag muy waa Njóobeen. waaw. ñoo wax nga dëgg kër Pathé Fure kër ma Doke kër ma Càngaay. Mhm, mhm. ñooy suñuy géer ñoo sant Diop. wax nga dëgg. kii rek maa ngi xaw fanaan ci ak ceeb boo xam ne nii. Euh, Seydou Seydou mhm. léegi nag li ma bëggoon a laaj mooy. Mhm. Euh, Alboury. Mhm. Seynabou Diop la moomu. dafa bokk ak Lat Joor ndey ak baay. wala day bàjjenu Lat Joor. <laughs> déedéet bokkuñu ndey ak baay Seynabou Diop. saa xewar Fatma. waaw moo jur yellaloo Seyba. waaw am ci Amadou Yàlla sancal ko dëkk bu ñuy wax kër Amadou Yàlla Amadou Yàlla moom mu dellu Jolof parce que mbokkam wetuk ndijaayam ñu nga Jolof mu takk fa Faatumata Nguy Faatumata Nguy bi mu ko takkee ci la am moom Amadou Yàlla ci la am bu Seynabu Jóob bu ñu delloowaat ko Jolof kër ndijaayam jox ko Biram Jéeme ko moom mu am ci Alburi Seynabu d'accord ah, waaye nag mook Alburi moo Lat Joor ñoo bokk maam ndax saa xew rey seen maam ñoom ñëpp. ah damaa bokk maam moom Lat Joor. Ah, ak naag hmm. Lat Joor xeex yu bari jàppale ko. waaw te ba muy dellu Jolof tamit di dàkkiwaat euh, euh, Amadou hmm. hmm. booba armée bi Alburi yóbbu waa Kajoor nga ci nekk. Mhm. wax nga dëgg. waaye tamit euh, tubaab yi sax am na amoon nañ dëgg la dëgg la. ndax boobu dafa fekkoon mu boo xam ni ñoom d' accord am nañ ko ak Albouri ak Lat mhm. a dàq Amadou ko Jolof. Mhm. waaw ndax booba ñu ngi doon campagne islam na xarit. waaw waaw dëgg la. jërëjëf Tall maa ngi lay gërëm di la. jërëjëf Ndiaye jërëjëf. waaye comme sunu. jàngu cosaan bi waaw waaye. wax nga dëgg yokk dëgg la dëgg la dëgg la waaw doomi mbër jàng bëri. yàgg yàgg na la ñam.

waaye réew mi comme histoire yi barki dé démb rek benn waaye ak ma woo ni ma mais ngol-ngol damaa gis président di décorer ñu defal réew mi dara lu tax bokkoo ca ma ne ko ñun euh, wax dëgg yàlla bëgg nañu ko nag parce que décoration day day day yokk ngóora waaye nag du suñu c'est pas une fin en su suñu ko amee xayrun buñ ko amul xayrun ndax euh, ñun ñii di défendre suñu suñu suñu suñu suñu démb di défendre suñu histoire di défendre juddu yi di defendre yu baax yi am na ñooñ bu ñu sañoon sax duñ jege président parce que arrangé wu leen ndax li ñuy yee am na ñooñ bugguñu mu yeewu te li ñuy yee du ñun ñoo ko yee téeméeri at yu ne yàlla day wëlbati jamono nit ñi ñoo dem ba ñëpp dëpp pour découvrir seen origine seen démb seen histoire seeni racine loolu c'est c'est naturel kenn mënu ci dara yàlla xam na ko salaamaaleykum wa aleykum salaam. sëriñ bi noo tudd ak maa ngi lay wooyee Tiwaawoon kër Cheikh Seydou Mamadou Mansour Sy. est Maodo Malick Diop tudd. Maodo Malick naam Diop. yow kay Taal de. waaw waaw Taal. Taal. jërëjëf Diop. ñu ngi lay te di la ñaanal yàlla. ma ñoo ngi delloo di leen ziyaar di leen ñaanal yàlla ñu nit. démb dama ci bàyyi ci góor ci wax nga dëgg wax nga dëgg. waaw ci bëgg sama turandoo ma bi ma waxee ni eh, ak ni mu demee góor gi Alioune Tall ca Bambey damaa gën a kontaan. wallaahi wax nga dëgg. bëgg Maodo moo jur sama. Eh, eh, ah. Ah? bëgg Maodo moo jur sama baay. ma bëgg moo jur sa baay yow mii. man mii moo jur sama baay. yow nag bëgg naa ñu daje. ah bil bu lay neex man la ñuy wax Maodo Maodo Malick Maodo raw. wallaahi ndax maa koy woy ba ñu may ma ci oto. est-ce que. <laughs> sëñ Mansour Sy ma yor moo ma jàngal moo ma may wér. est-ce que moo defal ma li ma defal may yóbbu ma màkk. est ah yow day sëñ Mansour wàccoon na yow. <laughs> waaw waaw eh, sant nag di jërëjëf Diop. ndax it histoire ko war a ko war a jëlee ba. Mm-hmm. waaye di wax ay mille neuf cent quarante quatre ak quarante cinq ak lii ay politique la du histoire. <laughs> déedéet yow nag histoire réew mi ngay wax. Mm-hmm. waxi histoire mille neuf cent trente cinq ak i quarante quarante huit ak i <laughs> Blaise Diagne bërki démb mi ak i ngala du jub xam ne sax la nga jox du leer nit ñi jërëjëf Tall yal na yàlla guddal sa fan amiin war nañ laa déglu di la ñaanal yàlla jàppale la. amiin amiin amiin a am histoire. dëgg la waaw man ni ngay jëlee Jolof jëlee ko Kajoor. waaw ah, dugg Njàmbur dugg tabaarakallah yal na yàlla guddal sa fan. amiin amiin Diop jërëjëf. waaw maanaam Maodo Malick Diop bu Cheikh Seydi ah. <laughs> ah, waaw waaw gu ñuy dem ma ngoy jaxate moo jur ma ci jaxate mu jur sama yaay. est ce que maa di bokk ci eh, tabaarakallah. est ce que est ce yow xam naa am ngay reen meew nu jaxate. jërëjëf gis nga réew mi noonu lañ bokkee waaw ñuy fàttali ko bu baax a baax sëñ Mansour borom daara ji ndax moom ah, dama mas a am ak moom benn affaire boobu dinaa leen ko nettali ndax dafa am ab benn jamono ma nekk Pompis nekk Thiaroye-sur-Mer station bi ñuy wax station Point d'eau moo jàkkaarloo woon ak hôtel bi ne woon foofu hôtel Charlie sëriñ Mansour dafa daan jaar waaye ay heures yi vingt et une heures yooyu lafa daan jaar ñu solal ko plein ci otom bu réyam boobu xaw ma limousine la woon xaw ma ma ñëw di ko sol benn waay ñëw déy ma ni ma kii sëñ Mansour borom daara ji la ma ñëw ci chauffeur bi ni ko ah neel sëñ Mansour man sëtu maa bëgg Maodo Tall la mu daal wàcce weer bi ma wiire ñëw jox ko loxo nuyu ko mu ni ma maa bëgg ma noo bokk ak maa bëgg xaaral ma jël ki ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëriñ bi noo tudd foo nii woowee. Euh, maa ngi tudd Amadou Samba Fall maa ngi lay woowee Njaareem. Amadou Samba Fall aca boog Fall bisimilah. waaw damay rafetlu émission bi rek damay rafetlu émission bi. waaw damay déglu émission bi mu yàgg sama yaram daw. ba dëgg la. wax dëgg yàlla yow moom dañ lay ñaanal rek. amiin waay. vraiment euh, sa émission euh, rafet na daal. jërëjëf Fall. ñoo ngi koy rafetlu bu baax ñoo ngi koy rafetlu bu baax. jërëjëf Fall. man maa ngi tudd Amadou Samba Fall Maguette Fall mooy suma wajur bu góor. Gora Fall moo ko jur Gora Fall Samba ñàkkul Fall. Samba ñàkkul Malima Fall Malima Fall Maxoro Jokuli Fall. Maxoro Jokuli Fall Major Fall Major Fall Mas Samba Takku Fall. est dëgg la ma Samba Tako ma Khura Jukuli faal ma Khura Jukuli Fall Amari Ngone Sobel faal dëgg la Amari Ngone Sobel Fall Maysa Bige Ngone Sobel Fall. waaw waaw Déthié Foundiougu moo ko jur. dëgg la man foofu laa bokk. wa yaa nga paleen dégg. moo bi may déglu émission yàgg sama yaram dafay daw. wallaay. <laughs> waaw dama sama yaram dafay daw. <laughs> ah waaw loolu yow. dëgg yàlla yow da nga da yàlla da may maam yu bind histoire. <laughs> maa ngi maa ngi rafetlu émission bi bu baax a baax a baax a baax. jërëjëf Fall bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf Fall waaw suñu bokk yooyu xam nga jol euh, bawol nag moom euh, euh, moo kajoor benn réew la boo fa demee da nga fay gis kër kër ca yaasin kër ca ndeela tenca tenca ndeela njaay dégg nga kër majoor ñoom ñëpp ñu ngi jóge paleen dédd woon na altine bële passé rek xam ngeen paleen dédd lañu leen indiloon tey nag ñoo ngi jolof réew mu rëy moomu nga xam ne waa li ma leen doon nettali léegi ci sëñ Mansour bi ma tourné ñëw nuyu ko Euh, mu ni ma loo bokk ak maa bëgg Maodo ma ni ko moo jur sama baay ah, benn waay ni ni ni ku toog ci ki toog ci kanam ndax moom mu ngi woon ci gannaaw ni ah maa bëgg Maodo day day siiw na ñëpp a ko xam mu ni ma yaa koy gën a siiw waaye tapp ma keroog nag dóor na ma dóor wu <laughs> xaw a tàng ci sama ginnaaw parce que xam nga sëñ Mansour moom dafa nekkoon nit boo xam ni dimension yi dafa dafa dafa bari dimension yi dafa bari alors euh, mu ñaanal ma booba man xaw xalaatuma sax ni dinaa dem ci ay rajo wala ay télévision waaye noonu na ma yaa koy gën a siiw xam naa gënuma koo siiw waaye léegi nag wax dëgg yàlla ñu baree bari xam nañ El Hadj Tall Ngol Ngol te loolu dëgg-dëgg eh, ay jaar-jaar la rek parce que nag nit bu amee maam mu baax it da cay langa waaw waaye sànnil sa maam <laughs> te jàpp maamum jaambur surtout maam moo kay nopp ba daa xonq loo cay jàpp nun kay suñu valeur yii nu am xam nga boo demee Jolof bu ñu lay nettali buuna dundug buuna rek jàngal na waa Sénégal géppug mbaax dundug buuna jàngal na waa Sénégal gépp ak mbaax ci ci ci ni doon doxale économiquement ci ni mu doon doxale socialement ci ni mu doon doxale politiquement c'était un très grand monsieur lépp lu am jolof tey jii bu naa ko fa yóbbu xoolal ci jamono jooju rek doom bu dem ba indi daakaande jox ko waa jolof ñu di ko bay dem ba euh, élevage bi gis nga boo demee daara fas yu baax yaa nga fa nag yu baax yaa nga fa loolu lépp ci plan de développement bi buuna bindoon la indi fa ay école indi fay teen lu waay waay gàtt gàtt nopp xanaa dégg nga bu na yaa yaa yaa yaa indi teen ya ca jolof moo bënub teen gaa ya di ca naan nu ko Ablaye Mbuub daan wooyee ba dem ba defar ay gaaram indi raay bi jële ko Louga ba Linguère Sénégal xëy dajji raay ya te bu na moomu dëgg-dëgg <laughs> lim def dañ ko waroon yokk waaye kenn waru ko daj salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëriñ bi noo tudd foo nii woowee. Fallou Samb. Fallou Naam Samb bisimilah. di woote Ngor. Ngor bisimilah Samb. waaw yow de war ngaa foofa. bi <laughs> moom mooy bu njëkk bi ni woote ci ci télé. wallaahi wallaahi waaye cofeel bu ma am si rek. jërëjëf sàmb cofeel bëgg lool. jërëjëf Samb man bëgg naa la. barke Sëñ Tuubaa mbokki Tuubaa lan nag. jërëjëf Samb. waaye sa émission yi moom bu bu nu dajee moom incha allah dama koy si daan ba jeex. alhamdulilah jërëjëf. jërëjëf Samb jërëjëf jërëjëf loolu sedd na xol trop eh, waaye bu na ak fi mu jaar ci Sénégal ak li mu fi def ci mbaax ci jom daf daan wax ni te da koo bind parce que moom intellectuel la woon waaw ah, intellectuel la dafa bind ni bu ñu la joxee gafak ak réew mi ni la séddale ko boo ca ëppalee du yow yaay defar réew ma xoolal googu ngor parce que as gor piir boo ko joxee junni boole ko ko ay nawleem da koy séddale moom ba moom du séddu noonu la ñu daan def waaye ñu jox la junni séddoo la waa réew mi nga lekk mille jox nu mille loolu buuna defu ko woon moo tax aw sa woy du fay mukk ci àdduna waaye Sénégal gis nga euh, yooyu yëpp heureusement sax moom tey jii histoire bii am jolof ba nit ñi xam ko di ko nettali nii lu ci bari ci ci ci vision buuna la jógee parce que buuna lim njëkk a def mooy dajale ab commission boo xam ni góor gi layti gisee ma nga ca woon c'était le plus grand historien di Jolof moom xaw ma lu mu bokk ak saa Sakok yi xam naa bu ma paree naa woo Mor Matisar laaj ko ko waaye góor gi layti gisee moomu même grand griot yu doon def émission par mercredi moo tax euh, maa ngi ñaanaat ma madame Ndiaye rek toujours sunu émission démb nañu nu dimbali wutal nu heure boo xam ne gone yi dinañ ko mën di seetaan parce que xale balaa 9h mu nelaw wala boo boo ko bëggee yóbbul émission buy dem ba 22h30 xam nga ni xale yépp tëddi wax dëgg yàlla te man gone yi laay liggéeyal man je ne suis pas la pour mag bu am juróom fukki at ak juróom mbaa juróom benn fukk te xamul dara ci cosaanam nii aadaam nii dëkkam kooku taxu may liggéey ki ama ki ki duggagul ci àdduna laa bëgg gunge mu xam boppam xam cosaanam bu ko defee ñu móole ko ko ba lépp lu ñu mën a def ci moom ëllëgit moom dina xam fi mu war a yem maa ngi ñaan bu baax a baax a baax waa 2STV nañu nu dimbali émission bi man di daw heure boo xam ne xale yu ndaw yi dañ koy dañuy dem sax di fëgg seen doom ci lal naan ko jógal barki démb loolu la ma benn waay wax ni ma damaa yee sama doom waaye bi ma ko yeet fekk na nelaw na xam naa ne bu seetaanee du comprendre day ne nelaw ma far ko bàyyi te loolu nag wax dëgg yàlla taxut nuy liggéey ñun liggéeyuñu te am na am na yoo xam ne waaye nag Sénégal moom <laughs> nii lay doxe maanaam euh, léeg-léeg li gën a lu lu ñàkk solo dañ koy may solo fekk lu am solo ñu ñàkkal ko solo te du noonu ndax xam sa bopp xam yépp xam sa bopp ci gën yii di am ci réew mi yëpp ñu naan diwa ko fi def ñu naan accam ñàkk a xam sa cosaan rek la waaye bu fekkonte ni réew mi bari na émission yuy jàngale réew mi ak jëfin yu baax yi ak jikko yu garmi ak deret yi fi newoon kon yu baree baree baree bari kenn du fi déplorer waaye nag ginnaaw ñoruñu ay sabarak yi yooyu lañu ñu gën a privilégié ci loo xam ni mooy sa bopp mooy sa deret waaw waaye nag ñoo ngi ñaan rek madame Ndiaye nga dimbali ñu nag parce que sénégalais yi nuy woo sonn nañu trop ci loolu ah. ndax am na ñoo xam ne ñoom bu ñu seetaanul émission bi it moo ñoom baax nañ ba noppi xam nañ seen aada xam nañ seen cosaan xam nañ seenub reen ñu ngay dem seen dëkk di fa ñibbi ñooñu moom wax dëgg yàlla wér nañu waaye ñi nga xam ne ay gone lañu yoo xam ne dugaguñu ci àdduna te war a xam ñun war a xam waaye jàngal leen Baudelaire ak Molière Shakespeare ak Montesquieu lan lay def ci ñoom rien du tout rien du tout xam mot leer ak bol yeer yooyu waaye nag réew mi moom gis nga ko li ma waa ci doon wax naan ma bu fekkonte ni li ngay wax nii ci ci ci universitaire yi nga bokk kon yow la ñuy njëkk a décorer barki dem waaye nag amul solo parce que li am solo moo di liggéeyalal sa réew rek man la keneen di waxoon loolu laay posé wu toujours sama bopp du ma laaj li réew mi man ci man mais man lan laa man ci Sénégal li ma man ci Sénégal mooy lii loolu nag buñ ko reconnaître xayrun buñ ko reconnaître wul xayrun te it ñi ko recon reconnaître nañ ko parce que euh, man pour vous dire lu mat presque ay ñaari millions yi sénégalais ñibbi nañu seen dëkku cosaan à cause de émission Démb ñaari million wala lu ko ëpp ñoo xam ne ñii dem nañ fa tabaxi kër ñii dem nañ fa ñaan kër ñii dem nañ fa dimbali dëkk ba ñii dem nañ fa defari fa jumaa ñii def te loolu lépp retombé yi la ci émission Démb loolu nag defe naa ni décoration ëpp ko solo ndax liy defar Sénégal mooy sénégalais bu nekk téye dëkkam téye cosaanam te loolu tabaar fakàlla macha allah noo ngi ciy bay sunu waar waaw suñ ko reco su ko Sénégal reconnaître nag tant mieux bu ko reconnaître lit tant mieux parce que nekku nu fi pour di liggéey ndax i décoration on travaille pour servir notre pays jusqu'à notre dernier suuf tant que ñoo ngi man rek di defar di wax luy defar Sénégal bu soobee yàlla yàlla na nu yàlla ci wax lu ko yàq. comme ni waa ji waxee sànq parce que léegi mejom yi bari na te liggéey yi uute gis-gis yi uute yëf yi lu ne ngi ci biir kenn ku ne xamoo lu ko tax di wax il parle pour qui et pour qui loo yooyu yëpp mi ngi Sénégal waaw du du du du du émission yëpp ay defar ah. mais am na émission yoo xam ni au contraire dafay participer ci luy détruire Sénégal ndax euh, lu luy indi manquen manquente respect wala euh, ñàkk a wormante boobu émission baaxul émission boo xam ne toujours dañ teg ci saa émission bi jàll lu mat fukki nit kenn ku nekk dañ yàqub daram ci biir émission bi loolu amul njëriñ salaamaaleykum salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëriñ bi noo tudd ak foo nii woowee. maa ah, dagg na waaye xam naa nga jéem a dellu rek. indi sa contribution waaw waaye histoire moom ndeysaan Sénégal <laughs> Sénégal a ngoog daal Sénégal li li gën a baax ci réew mi loolu lañ gën a négligé te lii ñuy wax yépp sénégalais bu mel nii sénégalais bu mel naa boobu suñ ko bëggee dinañ am bu xam boppam nit ku xamul boppam wallaay li ma leen koy waxee toujours rek mooy moo jëmm ju amutug ruuyam aw jën la fu la neex samp fu la neex samp waaw nan fexe ba di enraciné wu Léopold Sédar Senghor am na euh, bu mu daan wax naan euh, l'enracinement et l'ouverture mais d'abord s'enraciner salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëriñ bi noo tudd ak foo nii woowee. Adama Kob maa ngi Dagana. ah ana waa Dagana. ñëpp ngi ci jàmm. ana waa kër góor gi Ablaye Sow. <laughs> ñëpp ngi fi jàmm te dee ñaanal. waaw waaw jërëjëf. waaw. bisimilah. mbaa waaw c'est-à-dire que waxtaan bi laa bëggoon bokkale xam nga nit buy liggéey pour dëkkam. Mhm. di liggéey pour réewam du déglu. da ngay teg sa mbir ci yàlla rek parce que yàlla yàlla moo fi nekk ñëpp. dëgg la. nitu dëgg nag du bari ku koy <laughs> dëgg de. <laughs> waaw parce que bu fekkee yow da nga yeewu fekk sa ay waajur jaar ci ay mbir. Mhm. nekk ci ay mbir di doxal ay mbir mu nekk mbir mu yoon nga am un socle déjà nga am fa nga teg sa tànk. parce que mhm. bâtiment bu amul socle du taxaw. mooy fondement bi foo moom fondement bi nga am déjà plus ay waajur teg nga ñëw nga fàtte loolu topp civilisation ba dugg si bopp yeneen détails yi mhm. da ngay tardé da ngay jigéen sa bopp rek ngir yàlla kon nag waa ji li muy def nii man turam bëgg naa xam trop waa ku taxaw la ñu ngi ñaan yàlla yan na ko yàlla jàppale aha man El Hadj Tall Ngol Ngol laa tudd waaw man yi fii nga nekk nii yaa ngi ci liggéey ba nga xam ni yàlla ngay liggéeyal bul xaar nit déedéet xaaruma kenn yàlla rek. waaw noonu moom nga wone moom nga wone moom nga wone moom nga wone yàlla moo tax ngay def. yow defal ngir yàlla. amiin waaw te li wax nag dara dañu si parce que tey jii pour les générations passées kooku amatul lu mën def si ñoom. il faut passer à la future à la future génération muy ñu xal yi tey ñu xam ñoom lan lañu ak fan lañu kii. dëgg la xam nga mel ne Albouri. Mhm. wala ku mel ne Ndiaye Diagne Diagne nga def ñoom ba nit ñi leen wax bu mu nekk dans l'histoire Sénégal. Mhm. bu mu nekk nga xam ne mais yooyu yëpp léegi teg nañu on va vers la nouvelle génération. dëgg la nag jox la sama numéro gars yi joxal leen ma ko sama numéro waaw man ku lii lii ku mu parce que damay wax ni lii ku mu ñor rek bëgg nga réew mi parce que réew mi nag ba wax dëgg yàlla bari na ñu koy yàq waaye bari na koy defar nag waaw ñi koy defar nag ñoo ëpp sax moo tax kenn mënagu koo yàq waaye nag bari na ñuy yàq ñoo xam ne li ñuy def amalul njariñ benn réew mi benn njariñ la amalul Sénégal da koy yàq rek diviser ko euh, wutal ay noon waaw ndax yow saa ginnaaw saa yoo defee émission ba pare boole ñaari xol bu ne tàng. boobu émission kay du émission waaw merloo nit ñi rek wax leen lu bon nga invité nit muy xas moo koo xam ni boo demee koo ko gën wax ko lu ko neex ci sa kaw émission man sama émission kenn du ci wax nit lu ñaaw moo tax <laughs> léeg-léeg damay ragal sax direct yi parce que nit ñi léegi lu leen neex wax moo tax émission démb léeg-léeg nit ñi ma da nga ko war di def direct nangam nangam ma ne ko xamoo li xew histoire kenn du ko def direct ndax léeg-léeg nga gis ku wax mbii fañ woo xamante ni kenn mënu koo teg ci télé salaamaaleykum waaleykum salaam. sëriñ bi noo tudd ak foo nii woowee. maa ngi tudd Demba maa ngi wax de Fouta. ah sëriñ bi bisimilah. sama mbokkum Fouta waaw jërëjëf sant wa. ma Mbaye mbaay Mbaye waaw ñu ngi lay sant bu baax ah. maa ngi lay delloo sant. waaw di sant eh, chef général jërëjëf. jërëjëf moo ko mën yàlla na jërëjëf jërëjëf. ndax euh, émission démb am na émission yeer na am na pël ñu ci xam si démb ñu pël yi lépp am na. dëgg la. waaw donc euh, tamit yow sa sant neex nañu trop. jërëjëf. waaw taal moom fu ko dégg rek dañuy naan. waaw waaw ah laa bàyyi ko de damaa yàgg kajoor rek. Ah. waaw waaw. <laughs> ko ku buggul émission dem wala émission yeer rek day tamam. amul histoire. jërëjëf jërëjëf. waaw te jërëjëf yëpp jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërëjëf. ñuy nuyu nag suñu xarit Thierno Omar li moom it nekk ci Fuuta di nuyu di nuyu Aysatu Aysatu mi yor xaalis bi nee na ma nuyu ko xanaa bu ma paree dem ci yow rek. waaw ah, ma eh, tudd la ba pare yoruma ñaari salaamaaleykum moom mënuma ko ay satu Birama Sele la nag moo tax muy muy muy sama xarit moom su ma ko bëggee kii rek dama koy jaar ci Birama Sele mbaa ci Lat Joor ndax daa bari maam yu xeex nag ci réew mi wax dëgg yàlla waaw ah, may nuyu nag yaay si ca Njum soxna amaat Ndiaye parce que yaay si moonu teraloon duñ ko fàtte mukk ban demee ci daara xalay be <coughs> di di ñaanal waa Fuuta yëpp jàmm ak salaam nag ndax ñoom li ma leen bëggee mooy dañoo bëgg seen réew Fuuta boo fa demee wax dëgg yàlla ñoom euh, dëkk boo fi dem rek di nga fa fekk léeg-léeg ñu defar fa loo xam ne moo yi ñuy defar almaadi ñoo nuroo te loolu nag mooy ndamul sénégalais sénégalais bu am dara dangay dem fa nga dëkk nga def fa dara waaye ay yu ne nga yor ko ndakaaru te fa nga dëkk boo fa demee mbaar amoo ko fa xamuñu la sax far dëkk ba sax boo demee tuxu na comme ni waa Kajoor def ak Bawol ñoom yenu nañ seen i néeg ba dem bu yàgg a yàgg waaye nag loolu du du du du du lu baax parce que euh, bu ngeen xoolee sëriñ si ngeen fekki Touba. sëriñ bu ci nekk dëkkum maamam ma nga dem defari ko xoolal sëriñ Cheikh Sidil Maxtaar mu baax ma yal na yàlla yokk leeram te taas nu ci barkeem kër Ngana am na ku ma wax ni sëñ bi nee na koo fekk lu mu la ñaanal mu dal la ndax bëgg parce que tund ndogal woowu mu ñoo di maamam waaw ndax foofu lañ daan dajalee ginaar yi maamam maamam moo daan dajale ay ginaar bu màggalu Mbàkke Kajoor jotee mu dem jox ko sëñ Baara mu màggal ca moo tax gis nga keroog ba ma ko Koura Dieng di nettali bi ni ni sëñ Modou sëñ sëñ Modou ay sëñ mu euh, sëñ moo ko ko wax bi ko sëñ Sidil Maxtaar woowee mu ñëw mu may ko dund bu bari ak yére yu bari ak oto mu ni ko nag euh, soxna Maxam yi jur soxna Koura Dieng ni ko ah kii day waxuma la xalifa sëñ Baara waaye dina doon bu sëriñ Touba ndax lii maama ma ko defoon nit day fonk foo mu dëkk téyeb dëkkam téye ko bu baax a baax a baax a baax c'est très important waaw ah, bu ngeen gisee léeg-léeg ma tegaat sama sama émission bi ngol-ngol ah man it bëgg ñu xam ne manit it maa ngay avancé parce que njëkk laa leen a woon ngol-ngol mais léegi noonu ndax sama mag Abdoul Aziz Tall ñëw na defar kër ñeneen na ngay defar seeni kër yàlla na ñëpp yeggale kon nag euh, yaakaar naa li des bariwul euh, su fekkee am na keneen ku ne ci ligne bi rek nu jël ko te daal di tëj xajal sunu jigéen Adja Mbayang Thiam ci kër gi ah, ndax émission kër gi tabarkalla macha allah xam leen ni man ca laa bokk ndax Mbayang léeg-léeg da daan dem dénk ma ko ma yoral ko ko te loolu xam nga lu lu rafet la moo tax toujours damay damay damay damay seetaan kër gi dama ko bëgg dama koy ñaanal aussi mu gën a avancer rek te yàlla may nu wér te musal nu ci ñii fiir ñii fiir parce que am na ñooñ Sénégal dañ lay déglu seetaanuñ la pour xamee ca dara de dañu lay seetaan pour nga juum ñu exploiter ko waaye yàlla mi nga xam ni moo jëlul làmmeñ wërale ko fanweeri bëñ ñaar yàlla nañu ko aarale noonu ba duñ ci wax lu ñuy lu ñuy fiire ndax ñi lay seetaan pour fiir la nag dañoo bari waaye <laughs> xam nga li ñuy wax nun dafa yomb ci nun la parce que ci ñun lay jógee ah c'est comme si j'étais dans la rue en train de discuter avec des amis ce que jour li ma sentir laay wax rek moo tax c'est pas un peu c'est pas très difficile wallahi yàlla xam na ko damay wax rek li ma xalaat mais am na ñooñ dañ lay seetaan pour fiir la nga wax lu am njombe bu ko defee ñu exploité ko yooyu waaye yàlla nu yàlla sàmm te ngeen ñaanal nu bu baax nag ndax yii metti na de te ngeen ñaanal nu nu am warukaay bi jaayi seydil wujoot sallallahu alayhi wa sallam bi jaayi seydil wujoot parce que réew mi nag am na yooyu boo ko fi bëggee liggéey foog nga yor warukaay ah. yàlla nu ko yàlla defal waay bi jaayi seydil wujoot kon nag ñu bàyyi ba xam naa ginnaaw suba comme suba premier janvier la E ñu noppalu ko bu ko defee incha allahu talaata ñu dellu si nag talaata nag alarba euh, nag ki ñuy waxtaanee góor gu baax la woon gu nekk Thiès ñu koy wax góor gi Girital Mbaye dinañ invité fii doomam Mamour Mbaye bu soobee yàlla alarba su ma jógee fii léegi dinaa ko wooni ko bu mu ñëw suba na ñëw mercredi parce que suba feet la bu ko defee ñu waxtaan ci góor gu mag googu nga xam ni euh, néew na nga dem cees laaj ko te ñu la ni xam naa ko kon nag ba àllarba ak jàmm insha allahu rabbi salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu fii amaanillah bi ma mbayang abal ma boole ko ci kon nag uh, ba su ba àllarba ak jàmm insha allahu rabbi jërë ngeen jëf